si ak ummi. il faut pas que mu nekk ñoom bu may nëbb sénégalais yi sénégalais yi nëbbu ma leen benn information mu leex man boo xoolee sama ay post poste musuma ne bu kenn fay est-ce que mës ngeen ko gis wala mës ngeen ma dégg si plateau ne bu kenn fay damay ne man dinaa fay les posts sont sur ma page Facebook lu tax sama lu tax lu tax sama sama sama paiement jàllul week-end bële les plateformes de paiement benn doxu si woon week-end bii ñu génn ak week-end bële plateforme de paiement yi les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux j'ai cherché à payer week bële paiement yi jàllul la semaine j'ai pas eu le temps parce que maa ngi woon ci affaire pétition bi d'un rendez-vous à un autre mm. j'ai réessayé ce week là jàllul xam nga mon paiement il est passé de justesse quand lundi matin mais comme yéen da ngeen ma dànkaloon fanaanal daas fanaanal malheureusement yàlla weer leen parce que le temps man lundi bi ma xëyee di dem RTS dem débat ak monsieur Gadiaga sama dama xëy sama batterie wàcc maa ngi leen di tooñ sax naan man sama batterie oto bi wàcc sax wóoluwuma ci Senelec ma jël taxi comme j'avais vingt minutes à tuer dans le taxi ma ne ngi essayé parce que week bi yëpp maa ngi essayé et le paiement ne passait pas par miracle le paiement est passé ñoom entre temps jaar nañ avis de coupure lañ may indil avis de coupure mais avis de coupure bi boo xoolee dañ ci bind date de coupure le da ngeen ma coupé woon yéen li leen sàng sutura mooy da ngeen ñëw sama kër fekk leen fa kenn. sama sama aide ménagère la ñu jox bon bi moom comme je dis man sama aide ménagère bu ñëwee bu ménager day ñibbi avant avant 13h 14h elle est partie donc ñu jox ko moom mu def ko man jaar naa si kër 15h sax gisuma avis bi ndekete si waañ bi la ko def ba ma jógee benn émission à 20h laa gis avis bi mais date de coupure le 16 le même jour date de coupure le 16. lundi. oui il faut arrêter xoolal il faut arrêter de jouer avec les mots man j'ai jamais dit que du ma fay man nee naa leen bu fekkoon man fay kese mën naa fay ne patt def comme ñëpp toog sama sama sama kër mais euh, du ma ko def parce que li ngeen def Sénégalais du yoon du dëgg du yoon yéen da ngeen di wax régler régler ak déontologie mais yéen yéen a njëkk a ñàkk éthique ak déontologie parce que secrétaire général Sutelec moo dem semaine dernière à la TFM dévoiler ma vie privée dévoiler mes données personnelles yéen waroon ngeen a am kersa tey janook sénégalais yi nan diw am na ñaari clim ak ñetti clim ngeen wax ba yokkal ma ci lu ci amul vous avez dévoilé ma vie privée vous avez dévoilé des données personnelles et ça bu ngeen di wax bu ngeen di wax respect d'éthique ak déontologie vous vous l'appliquez à vous vous euh, premièrement gis nga ay affaire matériel ne ay clim aujourd'hui ce n'est plus ce sama kër ma am tey cinq clim dans ma chambre la la waxuma la sama kër sama néeg bu ma neexee ma def ci cinq clim mais lu ma liggéey ak yéen mooy bu weex dewee ngeen jox ma facture ma fay ko xam nga lu ma nanguwul du ma fay loo xam ne consommé wu ko consommé wu ma ko te man sur une sur un bimestre de facturation de 69 jours j'étais absente 20 jours de chez moi léegi expliquez leen ma en jours ma absente jours sama facture doublée sur la même sur le même bimestre l'année dernière j'étais à ngeen indi ma dama absente 20 jours expliquer leen ma gis nga dama bëgg man je vous donne un conseil de professionnel de la communication simple et gratuite je vous l'offre gratuitement parce que loolu peut-être les spin docteurs ñoo leen ko waroon wax comme yéen da ngeen di tëñëx tëñëx rek di dem xam nga lu ma leen di yëgal gis nga ay waxu ay matériel électroménager bu ngeen ci duggee yéen seen kaw lay këpp yéen waa Senelec parce que yéen kenn ëpp leen électroménager xam nga yéen du ngeen moo tax yëgu leen fuy métti ci askan bi gis nga fu mu toll nii yéen da ngeen vous vous appelez les Sénégalais mais da ngeen la Sénélec c'est pas un pays en parallèle au Sénégal vous êtes avant tout des Sénégalais merci de l'avoir dit au début on vit avec vous dans les mêmes familles on vit avec vous dans les mêmes quartiers xam nañ ni ngeen dundee ñiy fay ak ñu dul fay office keroog bi bi ma toogee seen directeur général ba ma ko laajee ñaata ngeen di daf ma gis nga ñun en tant que sénégalais. soxla soxlawul maa ngi daaneel foofu en tant que sénégalais soxlawul sax ngeen di def ay campagne di yàq naan il faut ngeen def économie énergie gis nga ñun. sunu ADN on est conditionné dès la naissance à économiser l'énergie ñun ñii ñëpp sa kër boo ci taalee lampe bi ñu nekkee xale sa pap fayal kan moo nekk si néeg bi fay leen donc aujourd'hui man ñenn rek laa xam ñuy yàq électricité Sénégal dëgg dëgg dëgg ci ci famille yi je ne parle pas administration agricole ci famille yi ñiy yàq électricité c'est les agents de la Sénélec et leur famille parce que du ñu fay courant léegi nag comme da bëgg a ñëw si diffamation man je ne vais pas descendre aussi bas ci ay diffamation man ay fait clair laa lay wax li ngay wax yéen a ngi ni date de coupure le 16 eh, nga ne ma avis ngeen ma indil date de coupure le 16 ummi c'est bon ummi c'est bon léegi Maria leen di ñaan ummi moo tax ma bëgg a dem ci doyen waaw ummi ak siis le débat c'est pas entre vous deux ñun dañu bëgg a waxtaan sénégalais yi nekk seen kër si li leen li leen leerul tooñ non tooñu ma la dem non yéen waaw d'accord moo tax ma ni le débat c'est pas entre vous. comme moom nañ ko yebal. ne ko boo demee lii ak lii ak lii ngay wax non siis moom. man siis moom siis moom moo njëkk a tooñ. parce moom moo ko ne man damaa pare démb tey siis moom dóor nañu ay yet ñun journaliste yi ay. wëy dem déjà déjà lim déjà lim mu njëkk a wax nee na. Maria Maria Maria Maria siis lorsqu'il dit que ce titre là c'est faux ci laa xam ne dafa mer. dafa mer léegi six le titre n'est pas faux le titre exact il une hausse après ba pare yéen da ngeen leen sànq de xam nga lan la da ngeen waxoon hausse abusive. Eh, parce que cette eh. hausse elle est abusive. Oumy waaw abusive Oumy Ndour <laughs>